ma laaj daal dañ ko def incha allah rabbi. dégg bi daf laa neex man suma combat la kafu ma si réew ma man maa ko xam sama combat la quoi sama combat la. naqar ba nga amoon ci Mame Balla aw aw ma si moom. maanaam boo da nga ne bëre mu daan la. waaw. waaw moo tax ma la naqar mais naqar. waaw loolu la rek. bëri la rek nañ si waa Yaraax nañ ñaan rek yàlla may ñu ndam rek loolu rek moo solo di woo Yaraax yëpp di woo àdduna loolu kese moo fi nekk. nga dégg Mame Balla daan la tey sa poulain di bëre ak si am ñetti combat. Wës Jàmbaar Wës Jàmbaar. Caatu di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam am nañu yaakaar yàlla nañu may ndam. waaw mm. non amul lu ma ko wax muy que Mame Balla moo expérience moo ko si moo ko jiitu si rek loolu lañ ko mën a wax mais leneen li si topp yëpp bu dee gën a la bu dee doole caat la bu dee bëre tamit yaakaar naa ni mooy li ñuy wax rek Mame Balla naxoon ñu daan nañu ñu accepté daan bi ñu daan tamit mais bu démb doon tey kon tey kenn du ko wax kenn du ko waxati mais kon tey lépp lu xam ni lu caat war a def la waxtaan nañ ko ak caat tey waxtaan bi ci waxtaan ak moom waxtaanu biir néeg la fóotu biir néeg la rek waaw. la douze Balla top 5 la tudd. le douze la ñuy gis. top 5 la tudd. waaw le top 5 la douze lay dañ. le douze la ñuy la ñuy gis. le douze nañ gis gis cosaan. dinañ gis Moussa Ndoye bu ñëw si asam Moussa Ndoye bu ñëwaat si làmb mooy cat ah. waaw ginnaaw a Moussa Ndoye fa la jëm parce que gis nañ euh, dama naan moo fi des comme sama adversaire potentiel amatuñu adversaire Zarko dem na Diène Kaïré dem na waaw muy kan non mayuma revanche ñaanuma revanche bëgg na revanche bi jot na nee na jot na man danga la man aw ma mayuma revanche tolluma revanche fa ah. ñoom Balla ak ñoom Giri ñoo ñoo si moyen de man tollu ma foofu mayewu ma ñaanu ma revanche. sa ma la wax du ma si làmb. Gris 2 du ma moromam si lamb sa diggante ak sos sa mën nañ nekk ay mag nii ay morom nii mais du ma si làmb dama si làmb. Ah, parce que waaw loolu si làmb mais du question dara sama nawle la. tagaw si man de. tey barki yoon tuuti bi ñu ma woo si woon tey tey tey avance bi ñu joxoon avance na pare nga pour jël waaw pare naa pour jël waaw parce que mënoo fi toog nag di année balance comme ñiy wax ñëpp kenn du ma si joxal dépasse kenn du ma si fayal saalu kenn joxuma samay transport wala dara kon am naa droit mënu ma toog tamit di xaar jëmale kañ kon jos na ñëw ñu bëre ma compétir déwén lamba ji beeku ñu xool nan na ñuy def daal bëriwaat. li bëri nee nañ combat daw combat càgg moo tax mu daw Alioune Seye 2 tàmm sos mu nooy mi. non Alioune Seye 2 mënu ma ko may chance mënu ma ko may revanche mënu ma lu ma sax débat démb nee na ma sos mi a bëreel moom moo ko daan ci ay sa waaw loolu amul problème man man ñi ma daan ñi ma daan moom si la bokk na lim basam ba pare loolu amul problème mbër yàgg naa daan nit tey da ngay du soir kan laa fi desee samay morom yaa xam bëri gu ma ak ñoom ñi ma ma loolu mooy sama philosophie fi ñu toll nii ay bëri bëriwaat bu bakkañ ah léegi li nga bàyyi ci mu bari mu jàll dafa bari non loolu bëgg naa ko leeral tey millions yi nga ci bàyyi bari na de yi nañu bàyyi di ma jaxase ak nit ñi. lu la jaxase ak nit seeti naa Moussa Ndoye fay naa ko xaalis bu bëri kenn waxu ci dëgg. loolu amul kenn dëgg tey nag laay wax ñu xam. ñi ko wax bëri na de. bu may entraîneur ngi nii man du ma caaxaan kenn waxu ci dëgg ma wax nag waxee ma dënn eh. dëgg. Ah. amul kenn ku ma sa fay combat bu tax ñuy wax ñooñu nag am nañu am nañu ay combat ma du ma wax seen tur ñi ngi dir ñi ngi seen i préparation combat yal na leen yàlla defal combat mais amul kenn ku ma si woo ni Moussa Ndoye man la waaw ngan ma fay naa nangam ci diw nañ bàyyi loolu. nee na yaa ngi génn kay rek kase moo ko yàq. non amul ku ma si woo wax ma kase bu normal ah. déedéet tey laay leeral nag parce que Moussa Ndoye di wax si internet bi Moussa Ndoye di tontuwaate wala dara mais kenn waxu si dëgg nañ bàyyi li ñuy def loolu rek am lu may wax. waaw. Ah. waaw man maa gën a bëgg sama combat man mii di wax ak yéen parce que mënoo fi nekk di entraîné di dem ba kañ ba kañ parce que li may man bi ma ñëwee ba léegi dimanche daa am repos. dimanche kese la am repos. Ah? bi ma ñëwee ba léegi ñëw ma pour toog ñëw ma pour dara. non loolu euh, waxu kilifa la yow xam nga waaw. non moom may ma ko sens. Eh. Alioune Seye 2 may ma ko sens ñaanuma revanche man ki ma ñi ma bëreel ñëpp ñi ma daan ñëpp kenn laa si mën a ñaan laa si ñaan sens léegi ci kaw dañuy lagee ci kaw. muy kan muy kan. non ki nga mujjee daan. waaw dañuy bëri ci kaw de. waaw dañuy bëri waat. man loolu leer na la moo ci nekk sa diggante guy non loolu du man gis kilifa gi yéen a ngi wax mu ne nañ dagg wax jooju. Ah, waaw ngay dagg na après rek. waaw. ok kon baax na. tey Moussa Ndoye. Ah, Moussa Ndoye guy gi. loolu moo guy gi dina dugg bële. loolu leer na. defal ni moytu. Khalil. Caatu Yaraax ab yow laa gis mu ràngoo de Khalil ñëwal jëgasil Khalil jëgasil bul teg prix de bien yow laa gis mu rangoo ñu ngi koy sotti benn butéel sotti nañ ko sow cosaanu lébu la ana yow ba xoolal xoolal xoolal lekkat de xoolal ga soow a nekk kaay xool ko fi kaay caatu yaraax a ngi caatu yaraax mi ngi nii sottee ko soow mu bari soow mi na man boo ma ko joxoon ma naan ko soo ma ko joxoon ma naan ko de soow mu fat fat rek soow mu pot rek cosaanu lébu caatu yaraax a noonu cey est-ce que doo jege est-ce que. yaraax ci lay bëree